jàmm ñu doore kàkk grève transporteurs yi demb ci altine ji ñenn ci chauffeur yi bootu ci CNTS xëy banque seen loxo ngir wane seen naqar l'observateur ubbi leen xët bu yaa journal bi ne transporteurs yi nasaxal nañu dembeeg dikk bi fii ci réew mi yenn kaay bi ne tàngoon na lool ci askan wi amul goto fii ci ndakaaru ak itam ci biir réew mi l'observateur di xamal ne transporteurs yi wane nañu seen doole ci grève transporteur yooyu lañuy ñuy desandi Walfadjri di ci àddu yenn kaay bi bile ci jamono jooju nag ñii di transporteurs yi wala sax syndicalistes yi ñoom ñu ngi bàkku quotidien national lu Soleil gannaaw grève bi na xal fan yu bëri ci dëkk bi gis ne lii di transport fii ci Sénégal moom dañ ko war a saytu bu baax a baax ngir jële fii li ñu nemeeku maanaam pëccoxo bi nekk ci kaw tali bi l'accident yu dul jeex wala sax ñàkk karange yi ñu nemeeku ci garage yi Le Populaire wax ci bile grève ak transporteurs yi dàkkal seeni ñaxtu ginnaaw bu ñu dakkalee grève bi dañu jël woto yi wutale ARTP foofee quotidien las di ñu xamal ne ñaari milliards yi Moustapha Yacine Gueye joxe woon loolee aju ci xaalis bu ñu lubaloon foofee ca airtp kenn tegu ko gët ci coow loolu sax ki di ndongo jaww wey di desandi ci biir kaso Rebeuss weneen mbir bi aju ci wàllu coow li juddu ci biir police bu Sénégal le quotidien di ñu xamal ne commissaire Niang ak Keita dinañ leen déglu tey ci jamono jooju moom seen kilifa bu yees bi di Anna Sémou fay dina jël lenga yi ma teg lenga yooyu jubali ci wàllu tàggat yaram l'observateur di ñu xamal ne kii di Pape Kouli Diop moom du bokk ci dongante bi war a dox diggante Sénégal ak Zambie li ko waral gayndeb Sénégal bi dafa am ay gaañu gaañu équipe national ñu xayma ko ci fukki gaynde ak ñett kii di Alain Giresse moom ñooñu rek lay desandi ngir waajal ñaari jongante bi war a dox diggante uganda ak Sénégal wala sax Sénégal ak Zambie bi war a am fan yi foofee ca France ci quotidien le stade gaynde bu bees bii di Henri Saivet di xamle ne dafa yàggoon lool bi ma bëggee ñëw fii ci Sénégal rek teewal réewam bu ñu jógee ci wala football soobu ci làmb ji le soleil fësal ci xëtam bu njëkk mbër yi gën a wane seen bopp ci saison bi ñu génni bokk na ci Balla Gaye 2 Zos Malick Niang Gouye ak Papa Sow Lac Rose Garga ñi amaloon combat bi di xaar verdict bi ba tey Tapha ci las di ñu xamale def saison blanche moo ko gënal bëreek Lac 2 sax Elton ñu jeexale ko yéeme doomu Nigéria bi di wuyu ci turu Polycarpe Newem moom nag dañ ko filmer rek mu nekk ci kaw balcon di sàkku benn xale bu am ñetti at doy na